hypermarché exclusif ñu bëri ci ñu ñu bëri ci ñu bëri ci ñun dugg nañ hypermarché exclusif ñu bari ci ñun ñun ñi tok fi ñun ñi di sétane conférence de presse bi dañuy dugg hypermarché exclusif man interpellé na ñaar ñett ñeenti yoon en tout cas ay yoon ak yoon ancien gouvernement bi ci situation kat yi nekk ci grande surface yi bind naa question écrite nelen liguey katou Auchan yi sonn nañu katou hypermarché exclusive sonn nañu li lañuy ñuy daj lii dac ñuy daj lii la ñuy daj dund li lañuy dund li lañuy dund gouvernement bu fi nekkoon bu defoon liggéeyam tay kenn du fi nekk di fi wax situation liggéeykatu hypermarché exclusive wala katou grande surface buñ defone sen liguey tay xeyna na lañuy wax xëy na dañuy wax naka la ñuy augmenter salaire yi naka xawma la nag lan ça veut dire que liggéeykatu supermarché yi liggéeykatu hypermarché exclusive ñoom Auchan ñoom Carrefour ak ñoom seen seen situation bi mu commencé métti du tey waaye ñun itam foog ñu xoolaat suñu bopp de l'essentiel man naa ndugg rek naa ndugg rek naa dem hypermarché exclusive ndugg rek ñii di liggéey foofu ma leen di romb bu may nduggu seen nekkin sama yoon newu ci man naa ndugg rek ba kañ hypermarché exclusive indien moo ko moom indien nit la waaye sénégalais nit la indien nit la dafa am ay droit waaye sénégalais tamit nit la dafa am ay droit li am nag mooy hypermarché exclusif. ce fa est moi si tu hypermarché exclusive ñu ne la am me contrat baa ngi nii nga ne damay liir ñu ne la amul da signé nga dem vous ko bëgg uti Madame, Sénégal Inde patron indien warul doxalee noonu ak liggéeykat sénégalais wala liggéeykat bu mu munti doon fu mu munti bàyyeekoo ci àddina bi dama ne liggéeykat fu mu bàyyeekoo ci àddina bi bu demoon liggéeyi Inde ñu ne ko contrat mu ngi nii dañ ko war a bàyyi mu liir ko man de signé naa ay contrat waaye damay jël contrat bi ñibbeeg moom damay jël contrat bi ñibbeeg moom ma liir ko à tête xam naa am na ñu may xool naan ma <laughs> gii li ngay wax nii est que xam nga ne ñun ñii sax dañoo gisul sax contrat bu ñuy signé <laughs> donc yow boo gisee contrat bu buñ la waxee bu liir waaye signé ko santal yàlla ngeen jéggal ma de am na ñoo xam ne ñu ngi naan gii ñun dañoo gisul sax contrat bu ñuy signé ñun bu ñu amoon contrat bu ñuy signé te duñ ko liir sant yàlla ndaxte gis contrat donc luy ndeyu yow nga nekk Sénégalais nekk sa biir réew. Nous ne des sénégalais mais patron la ont droit signer da contrat te lire c'est à prendre ou à laisser ak dëkk du hypermarché exclusive dafay tamit ci contrat hypermarché exclusive boo vous avez da ngaa am dëcc ne samedi ndaxte da nga am deug ñu autoriser ko même boudé sa maam mo gañu wala sa yaay wala sa papa mo gañu ñu né la sa absence c'est autorisé manam may nañ la ga dem ndaxte xam nañ sa papa mo gañu dañ lay dagg 7000 francs ci sa salaire dañ lay dagg 7000 francs ci sa salaire absence autorisée la wax dé bo absenté ñaari fan ñu dagg le 7000 francs fois 2 muy 14 francs Il y a une absence muy 7 000 francs fois 3, 21 francs ci avez ngeen ma dit. dañuy wax lépp salaire bi vous salaire bi par 31 jours jour bu vous 3500 500. absenté absence autorisée ñu avons 7 waaye yow xanaa dagguñu la journée bi yow déjà absence autorisée mais naka lañ la koy daggee waa d'accord Ligue jafe na ci réew mi nangu nga ñu ne daggal nañ la deux jours te benn jour nga absenté noot la benn yoon ci absence excusée buñ lay dagg noot la ñaari yoon ci dagg la deux jours ci benn jour absence ba kañ deux jours d'absence quatorze mille li de mo xew de hypermarché exclusif motax ñun sénégalais ñun ñi di dem di ci magasin de grande surface ah, il faut ñu nous suñu ay choix ça veut dire que nous ñu ngi nous ko xam qui mu ngi note suñu dëkkandoo yi mu ngi Nous suñu mbokk suñu mbokk sénégalais yi ñu ko siy ci kaw na ndug rek man na rek loolu la ñu wax ne da fay jeex waaye coow li coow li coow li coow li boo feebaree sax am certificat médical ñu dagg la sa 7000 francs bu dee absence benn jour la bu dee ñaari jour ñu yokk ci yeneen 7000 muy 14000 yàlla boo feebar une semaine boo feebaree une semaine nag fin du mois, nous avons le bulletin de salaire, nous avons ici 0, 0, 0, 0, 0, 0 francs. CFA. Ce qui C'est ce qui est le est le hypermarché exclusif de Dundu. Ce qui est le est le nous avons dit que nous avons dit salam. nous avons dit que salam, moy, que nous avons dit que nous avons dit yoon nag may ñu ñu am syndicat indien bi hypermarché exclusif syndicat du fa taxaw syndicat du dugg hypermarché exclusif te ñi di dugg hypermarché exclusif bari na si ñoo xamné dañoo bokk ay syndicat mu ne syndicat indien bi nee na indien bi hypermarché exclusif mu syndicat du dugg bir hypermarché exclusif gars yi ne ko non non non du fi amé ndaxte Inde sax bu ñu fa doon liggéey dañoo war a am droit nekk bokk syndicat États-Unis sax bu fa doon liggéey dañoo war a am droit bokk syndicat France wala Japon wala Chine bu ñu fay liggéey dañoo war a am droit bokk syndicat rawatina ñu ngi suñu biir réew am suñu ay droit nga bëgg ñu ko xañ suñu biir réew suñu biir Sénégal liggéeykat yi ne dañuy bokk syndicat ñu dem bokk ci. syndicat des travailleurs des boulangeries, pâtisseries et restaurants du Sénégal, Sintra BT, BTRS. Sintra BTRS, syndicat des travailleurs des boulangeries, pâtisseries et restaurants du Sénégal. Nous sommes beaucoup fofu. li ngeen fi nar a dégg ñoom dinañ waxal seen bopp liñ fi nar a wax yëpp ay lay la coow syndicat bi moo leen Nous nañu profité ñu Nous ñu nañu profitoo def leen ni semmiñ jëriñoo leen ay wèr ay at après sànni leen jëriñoo leen comme ay mouchoir fomp ba sa xol sedd après nga sànni Mané, les travailleurs de l'hypermarché exclusive ne sont pas des torchons ne sont pas des mouchoirs xana mouchoir ak torchon sax bo ci paré digo nga passer passé lem denc ci tiroir xanaa torsion sax donc ko ci mbalit bo paré pompe les travailleurs de l'hypermarché exclusive ne sont pas des mouchoirs à jeter les travailleurs de l'hypermarché exclusive ne sont pas des citrons yi ñuy sànni ginnaw bu ñu leen ŋaccee ba jël ci euh, maanaam ndox bi yépp coow li coow syndicat bi lañuy ñuy bañ mu dugg biir mi biir hypermarché exclusive légui nak hypermarché exclusive diirante mbag bi muy diirante mbag ak ak Auchan ak Carrefour ak Jaayma ak EDK ak Casino ak ñom Sen, choli choli choli, li coow indien bi hypermarché exclusive diirante mbag bi muy diirante ak ñom moy man hypermarché exclusive naka lay fexé ba jaay marchandise de njëg bu gëna yomb Auchan njëg bu gëna yomb Carrefour e bu gëna yomb EDEKA njëg bu gëna yomb jaay wala yenen grande surface yi fi nek légui nak mu ne manam pexé bi parce que loo fay liggéeykat bi da nga koy répercuter ci marchandise bi mais courant moom amul pexe doo fi nekk di sàcc Senelec ba pare Senelec di ko gis ndox bi ngay utiliser amul pexe lenn rek moo am pexe mooy ci liggéeykat yi nga mun jaar pour yow say charge yow hypermarché exclusive mu gën a gàtt pour yow say marchandise mu gën a yomb pour nga mun concurrencer say adversaire say concurrent ñun nak suñu yoon newul ci bëre digënté hypermarché exclusive ak Auchan wala ak Carrefour suñu yoon newu ci noy def ba gën leen bax ba sa ñëk gëna yomb yow ya xam patron indien hypermarché exclusive waaye nak suñu yoon mu ngi ci bu fekkee da nga bëgg note noot say kat pour gëna bax la ñëk ñi nga xamné ne ngay diirante mbag ci marché bi donc yéen employé de hypermarché exclusive li leen dal lii la naka laay jaayee potu meew bi njëg bu gën a yomb potu meew bi ñuy jaye Auchan wala fenen. naka laay jaayee xaw ma bi wala naka laay jaayee nen bi njëg bu gën yomb léegi man sama liggéeykat du ma fayal IPM du ma fayal IPRES du ma fayal xaw caisse de sécurité sociale damay jël intérim Auchan bu defee intérim man ma def intérim bu ma munee def intérim bu gën a yées ma def intérim bu gën a yées pour sama liggéeykat syndicat nag du fi taxaw parce que syndicat bu fi taxaw ne ma yokkal salaire bi yokkal lii cotisation IPM te bu ma ko te te bu ma leen toppee sama liggéeykat yi day daal di cher te kon sama marchandise day daal di cher te kon xëy na man du ma mun concurrencer magasin Auchan wala magasin xaw ma Casino wala magasin xaw ma yeneen lii mooy wax ji. léegi nak dakh nañ bi barki Dembo hypermarché exclusif bi nek Yoff wetu aéroport bo siège euh, agence de la sécurité de de proximité ASP dakh nañ ci juroom ñet liñ leen fa wax syndicat du fi te indi syndicat il y a marchés, a dox syndicat bi dugg fi syndicat bi du syndicats fii sont bu fi duggee droit droits ils ñu xamee droits... droit ma yokk salaire respecte code du travail donc dina am IPM dina am caisse de sécurité sociale dina am sont ak leneen dafa baax tamit ñun sénégalais ñu savons les enjeux du des rek de dégg rek ci supermarché léegi nag ñu nekk ay ñay ñoo xam ne dañuy dëggati ñax bi ñax bi mooy ñan liggéeykat yi du waruñu ko nangu tey waruñu ko nangu yenn saay nag ñun consommateurs yi ñooy nekk ñax yi ndaxte yenn saay nga gis produit boo xam ne bi mu jeexee yàgg na ñu ñu koy jaay loolu yëpp ci seen concurrence la naka la amee bénéfice yu bëri sur le dos des travailleurs naka la ñuy amee bénéfice yu bëri sur le dos du consommateur travailleurs yi nag ñoo si gën a sonn